ndigal ñu ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar baax Cheikh. maa ngi koy jàpp. waaw sant nañu baax. mais tey kan nga indi. Bébé Elton borom soow bi. borom soow bi. waaw mais maa tey dina dina dina xëppoo li nga xamante ne mooy soow bi. lépp instant def na premier premier partie bi des na deuxième bi quoi. dëgg la mais lan lañ mën a xaar ci diggante mag Milka Sow. non incha allah dañ koy ñaan yàlla may ko ndam rek ndax waaj na de wax dëgg yàlla entraîné na waaj na ànd ak ay mboqam ñu ñoo ko indi. nga xam nga ne tuutaluñ bis bi quoi. waaw di ko ñaan ndam. mais poids bi mu yor nii baax na ci moom. non wàññi na poids kay forme bu nice la yor. Ah. waaw duñ ko liggéeyaloo physique physique yu métti sax incha allah. mais combat bi dina gaaw. non bu bilig soo bëree mu gaaw mais ñun moom duñu asaale suñu combat day jël suñu temps ndax ndam lañ bëgg. Ah. waaw ko yàqal quoi. non duñ ko yà ko yàqamti. dëgg la waaw na ndànk-ndànk rek ba daan ko. mais keroog ñu gis sa combat bi passé yaa ki nga xamante ne mooy Zawa Bale ñu ñëw nga gis nga teg ko ci fulla teg ko ci fayda ànd ak la déela woon wala lan la. waaw mais Zagob samp yoo boo ko bëggee daan foo nga ànd ak say mbokk dal pour mën ko daan quoi. moo taxoon ñëw def noonu rek pour jël suñu temps pour daan ko quoi. dëgg la buñ ko defee yàlla may nañu ndam. mais li nga ndax kuy compétir cinq ans muy daanul yow nga gëj a compétir trois ans boo ñëwee da nga koy jëlee une minute yaa yàq sa moo tax ma jël sama temps def ndànk yor ba daan ko. dafa mel nga yàgg euh, seetaan ki nga xamante ne mooy Jacob Baldé. pourtant yàggu ko siiw sax soo jumul premier combat bi moom moog euh, Mbagnick Kaye laa njëkk commencé suivre bu baax quoi suivre ko bu baax bi combat bi tax damaa dugg YouTube seetaan ko tuuti xam xam ni ma war a bëree ak moom quoi. ñëw gis nga fat Franc yëpp Sokab amul fu mu dugg. waaw Sokab endurance lay bëree soo bëggee bëree ak moom foog nga fatt ko pour mu bañ la vidé quoi sinon da lay vidé ba nga sonn mu daan moo tax ma ñëw bàyyi ko sama poids rek ba pour moom mu sonn quoi bi mu sonnee ma daan ko. mais foo jëm. si kanam rek caat booy bambara laa soxla. wala Modou Anta. wala Modou Anta. Mhm. instant yii moom ñoom nga visé daal. waaw ñoom laa soxla. Modou Anta diisul. non non man kenn diisu si man lamb moom fi nii. Hmm. ki si kaw ba si suuf kenn si man. aji am na solo mais premier janvier. Balla Gaye 2 Boy Niang. Balla Gaye mën Boy Niang. ah loolu loolu moo ko mën. mbaa nekkul lu nga dëkk géej waay. non non moo mën Boy Niang. te bu ku ñu nga moo ko mën. non moo ko mën noonu la lan man bi may bëree sa xam naa ne maa ko yow bu ngay bëri sa bopp. waaw xam naa ne maa ko mën. mais boobu combat lan a xaar. ah bu su ko def bëri xeex. fecc fecc bu neex booy ñaar fecc fecc bu neex Balla Gaye tus tus bu neex. ñu ñëw bëree Balla Gaye ma ko daan moom man na laa say xaar te xam naa ne moo fay am. yow yaakaar nga ni Balla Gaye booy ñaar du ko attaqué wala. booy ñaar ragal la man ñëwul attaqué booy ñaar Balla Gaye. ñun dañuy fàtte quoi boo ñaa bëri ki ne mënoon bëri tafatin fii ak la deger. dëgg ne boo ñaa yokk fit. dafay gën a jëm mag. kon fitam day gën a wàññeeku ak dooleem mais mënu fee gën a am fit kon tey boo ñaa mënu ma dégg dara ma koy gëm lu muy def dafa may lu muy laaj nag combat a danger ñi mu bëyoon ñi mu jógee ñi kii seen seen champion si làmb kon combat Balla moom mi ngi soog di am combat bu danger ni Balla Gaye ngeen boo ñaa la ma dégg sa gars yi interview combat yi bokkul combat yi bokkul parce que bii moo gën a danger mais xeexkat la de ku mos boo duma mbër mais dañ laa centre Jacques Sirat la jàngee xeex Boy musu mosu mbër mosu taxaw impo attaqué wu mu duma la mom day contre attaque da ngay door mu remise. duma la mais musu taxaw mbeur taxaw baña xex mu fekk fa duma ko. mais guuy gi ne Boy da mëna xex wa lool wax guuy gi la xam nga guy gi mom mag moom ay comédien lañ. mais Boy mëna xex mais wané wuko bu ko mëne te amul fi xex bo ko mëne xex te mu amo fi du xex do sa xex du feñ mais yaakaar nga ni balagay bu bëree combat rapproché combat bi du gaaw mu digënde mak Boy balagay amul lu muy bëri combat Boy moy xalé neene ngeen balagay mu tollé fi Boy Niang toll di bëri ñom Tyson moy leen fa doon fekk di leen duma di leen daan dama yalla yàlla si kaddu gi xam ma kon Boy Niang bu bëggee fi moom bu bëgg dem ci kaw mo mo fa war a jëlee Balla Gaye amul lu muy prouvé ci combat bi ndax ku bëre ba nek roi de arènes dal ñi fi ñi tawoon ñëpp daan Boy day des si moom Balla Gaye daanee Boy Niang daw def tax day jug dox naa nga ñu and dem ñibbi ah. noonu lu ñuy def mais ñong lay jaajëfal waaw ah, ñoo far yalla ma ngi ñaan la yow jàmm di ñaan sët bi bokk si di gëna mag senegal quoi di wax na mbëri ndey na yees des nak ma ngi xol su fa mag nangu jël dina may ay boy sans ñu bëre yeen boy nga mëna may sans non duma tuddu tudd mais dal boy bu pare incha allah la may sans mais yaa yor bës bi waaw bës moom yàlla dogal na ko Sénégal nag suñu borom moo dogal lu ko neex fi mu ne nii bës bi. dëgg la maag Sonko ko doon xëccoo maag Ousmane Sonko di téye naa ko nangu naa ko si moom. nangu ko si loxo ma loxo maa ko nangu si loxo Ousmane Sonko téye koy saa yi nii. Ah. waaw ñu ngi lay jaajëfal. sa diggante ak Talfa dégg naa tamit ñu ngi koy dox. waaw am na ñu ma woo am na ñu ma woo ay Talfa ay Kaw Gourdin ay Cheikh Tidiane Niang et cetera mais man nag dama bëgg si kanam ñu ngi si kanam laay xool quoi souvent mu li ma bëgg nag am lu fi des mais Talfa jàmbaar la su ma juum na cinq combats la ko ma six bëreegulooy ko mais nag wax dëgg yàlla am na coow bañu ma kenn tamit doo minimiser benn mbër ndax koo xeebal euh, ginaar koo xeebal boppam yaa ko rey mais bu gars yi génnee moonin rek man moom am na mbër yoo xam ne moonin bu tegee stable ma jël leen jaar raxas leen jàll nekk si leneen ak Talfa nu nekkee ci yoon nii ñu proposé la ko ba baax la loolu danger benn ko maam laa siyaar mu mujjee bëri laa ma sa xam Talfa man moom soq bu ndaw moom no gisuma ay daan man danger amul ci mbeur parce que qualité ne ci man la xam. waaw man ñi may contactal ku yalla may sans ngay beurek Balla ngay 2. dëgg la ay fils de Balla xëy ay jinné lañ ci lamb jinné dëgg la man contact lay damay jom yaa man est ce que ñu duñ soppal léegi nga plaqué mbeur bu ñu tëdd mu mu mu roulé. dëgg la foo ma jangé beuré mo danger motax ñoñu ñooñu suñ bëree rek ñu xeeb leen. dëgg la ku ma si bëree ñu xéb la. mais léeg do tok sax di gis benn mbeur ci télé bi wala nga gis benn mbeur ñëw ci stade bi gis benn mbeur mo xamanteni da and ak forme and ak doolé and ak sañ-sañ ngay wu ci moom non non dina gis mbër état daal état daal dinaa si faa mbër bu rafet gis mbër mu taxaw ma xam ne kii déjà entraîné mais bëre moom qualité bëre gisuma si ko fee sama bët dëgg la mais tey jii pare nga pour jël Talfa déggoo li ma la dama ne la su ma bëgg ñoo ma laaj ay moo daanta caat booy bambara boobu ay yëkkani si ñoo su ma leen mën a yi des bàyyi ma fi kenn xale bu pare pour ñu say bëgg ñu may na ma daal la nañ ma jël ma daal leen kon Talfa yaakaar naa ne Talfa woo Kaaw Gourné woo Cheikh Tidiane Niang bàyyi ma fi kenn parce que ñoom ñëpp a yem dugub benn dara minu mi sukkandiku ma si Talfa parce que Talfa dama ba koy laaj si làmb. mais la lamb. non da ngay dégg du ma moromam ndax mënu ma daan sago balle seen patron bari ki di tourné di jël ay boy Tapha Tine taxaw fi di si wax mënu ma si woon tudd sax di si débat mais comme yéen a ma laaj foog ma toll dama ne la. man caat booy Bambara laa bëgg wala Yékini Junior wala Modou Anta. mais su ma leen mënta am gone yi ndaw yooyu wax. waaw ku si ñëw say bëgg mu am defet na ñëw ma daan ko. sant bu baax ko si bëggul wax sama baat bi moo métti mooy. lañ ko wax. waaw lamb la rek. la mais ndigal war na mën a bëre keneen ku dul talfa quoi. ko dëggoon lamb yëpp lamb la mën na daan ku ne. mais war na mën a am beneen yoon bu dul talfa ndax dafa yàgg ci làmb te yoon la mu yegg fi moroomam yi yegg. Mhm, waaw ñu ngi koy waaj te yi ñaan yàlla yegg seeg jàmm suñu borom defal ñu ndam incha allah te dinañ ko am. cappaancool waa ngeen di bëree. waaw waaw Boy Niang moom it Balla lay bëree. dëgg la. Mhm. mais combat bi dina ak du yomb yëpp ça dépasse ñaar rek mais ñun daal waaj nañ ni ñu war a waajee te incha allahu rabbi le premier di ngeen xam ne ñun pare nañ te liggéey nañ. dëgg la mhm. maa lay fay bu baax.